am na lu kenn xamul te mm-hmm. maa ngi nii toog man lu kenn xamul la day defee laay dindee am na ko fi ñëwoon daaw di ma ñaan doom ma ñaan ko yàlla Serigne Saliou ba am na ko <laughs> xale baa nga ne juddu na ndeysaan yow Serigne Saliou maa la yaa di teraanga mara billaay ñun ñi la am nag sant nanu ñoo ngi yàggaay ay waay waay waay bul jooyloo nit ñi ay waay ay laay bul yàq cat gi ay eh waay yaa jooyloo ñëpp barki sëñ Touba lii lii mooy lii mooy lii mooy yëfi Serigne Saliou kenn xamut lu moom kenn ku koy wax sax xamoo fooy jaar ndax Serigne Saliou defar na lépp moo xale bii di xool ak gëtam yii ma ko koy sant nag balaay sax moo kii bu amul woon doom fu ma jëm ci kattanuk yàlla boo waxee ñu ne moo moo dañuy ñaan ci barkeem rek mu def ko mosa jooy yii maa ngi jooy jooyu xol waaye maa ngi dëgërlu nag waaye ci sama njaboot nga bokk ma xam ne bu ma ñaanee as yàlla may ma tuuti ma ñaan ko tuuti te xale bii dina dund du ko ñëpp ñaanal dundu moomin la waay way jur yu tuur nay xéewal waaye xéewali mbégte la moo lii ku mu dawul sa yaram est-ce que nit nga baas bi tey ñëpp nee nan lasaar waa waa waa seen pës ñëw nañu elage hélas say baas bi yaram yëpp a daw ndax sëñ Saaliw dafay feeñal kemtaan moo ko taxaw fee yor aajo ne mënu ko moo aajo jooju laay faj ci kattanam ñun sëñ Saaliw dañoo dimbali moo tax dëkk bi dëkk bi ñu sañ fee def lu fi kenn dul def ba pare sëñ Saaliw gis ko teg ci tànkam ndax ci moom lañ làqu ki fi jóge léegi ci baas bi doy na ci seere surtout Cheikh Ibra la demut fépp

ñi xamul leen yërëm bu leen leen saaga bu kenn mere kenn bu kenn goddi kenn jéggal leen man de xawtuut duma màggal si soxna may téye ko xaw soxna may toogal yow bul dem toogal nii ndax yéen da ngeen a gëm lool Serigne Touba te Serigne Touba amul ku dul ñun maa nga woon ca ndakaaru ya doon wax yéene ji ma amoon ren far borom bis bi def ma ko